bàyyiwu ma benn yoon te yàlla xam na ne fii la ñu xamante ni Safia Diallo di koy remercier di remercier jëkkëram ñoo xam ne dañ daan toog bi affaire yi tare États-Unis ñu yëkkati seen téléphone ba guddi war a nelaw mais pour ma soulager donc actuellement li si des mooy combat bi ak ki te nañ leen si suuf face to face Aïcha ah non dinañ leen remercier donc Ben li ñuy waxtaanee yëpp dégg nga ko on va y aller on va pas reculer mm. père man maa ngi ci yow xoolal alhamdulilah ne recule pas fii kenn xoolal instant yi benn ñëw na maa ngi waat sa côté hmm. ah. yow nekkal ci jàmm Fall. léegi téléphone bi muy eh, nañ ko téléphone bi xaaral xaaral mais benn xale yi kontaan nañu bu baax ci retrouver la on reçoit des message message yaa ngi taw instant bii nii sur Facebook oui. xam nga am na ku fa nekk sama avocat la. Aïn Badara. Alioune Badara Bey moom parce que bëgguma jël temps nuyu leen ñoom Alioune Badara Bey ñoom Adja Adja mm-hmm, mm-hmm. kooku nga xam ne bëggul kenn ku ma laal ku ma laal mu ne la radin nga dëgg la wax leen je tout <laughs> ñi si internet bi wax leen franchement gis naa lépp quoi il est de retour et on va le sentir ci émission on va prendre notre temps ñu nga xam ne moom la ñuy waxtaanee mm-hmm. euh, appartement ou maison familiale choix de s'isoler ou de vivre ensemble ñu may en attendant père mu digérer ñu ñëwaat ndeyame ñu bàyyi la yow itam nga introduire bismillah. waaw bismillah balaa may bu fi nuyoo dégg nga s'il vous plaît. sama benn papa laay nuyu rek sëñ Baara ñang ci Kaolack. muy sama xarit di sama sëriñ macha allah maa ngi koy ziar bu baax ñang baalu. papa dafa ne moom jamono la fi moom da bu yàgg ba la fa indi. te mhm. xamuñ ne bu bu njëkk ba. boo daan takk soxna ci mag ñi dañ la daan utal benn néeg ca ginnaaw rien que pour nga mën a nekk ak sa soxna si jàmm. yaa ngi may dégg. amoon na ay temps jamono yu njëkk yi muy wax. kër gi da daan nekk ëtt bu ngand. mais dañ daan am ca wàllaa ca ginnaaw. dañ fa daan def benn néeg ñàkk fa benn néeg boo xamante ne bii waxe maana bi nekk ci biir kër gi am na soxna dañ koy ber ca ginnaaw pour mu mën a nekk ak soxnaam ci bañ a bañ a jàkkaarloog sax ah, ay goroom ak ay ay ay njëkkeem nekkee ah, appartement yi du tey la njëkke yàgg na mais peut-être xaj na nañ ko daan defee bu njëkk ak niñ koy defee tey moo dul benn sànq mu wax ne nga ñëw si kër nga sëy si si kër fekk fi sa goro ah, kan moo koy defaral ndékki kan moo koy taajal ndékki gis nga boo demee ci alxuraan sax hmm. jëkkër sax forcé wuñ la ne waxuñ la ne la par force ne danga ko war a toggal añ ak reer ak ndékki na borom xam-xam yi dugg. Oh. soxna soxna si boppam sax war nga koo utal war nga koo utal ku koy toggal defuñu ci benn alxuraan alxuraan alxuraan démb laa nekk diine waxuñu fenn ne jigéen par force dangaa war a toggal sa jëkkër par force dangaa war a toggal sa mais buñ nee jigéen dafa war a tàbbi yu borom këram ça résume beaucoup ci la bokk donte dafa rafet waaye waxuñu fenn ci alxuraan ne jox sa jëkkër mu lekk ak naan loolu par force la mhm. amul ci alxuraan boo demee ci naar yi seen jabar yi duñ def dara naar yi. naar jabaram du def dara. dañ koy waaw parce que ñun loolu lañ ñu mooñaale loolu lañ loolu parce que ay nit ñu ñuul lañ dañoo dañoo am ay habitudes yoo xamante ni bii da ngay respecté yaay respecté papa respecté goro respecté lépp parce que ñun loolu la mais boo demee tey ci li ma la wax nii na borom xam-xam yi dugg waxuñu fenn ci alxuraan ne ko dangaa war a toggal sa jëkkër par force boo sëysee ci kër fekk fi sa yaayu jëkkër wala nga fekk fi sa papay jëkkër mu lay poñe par force ne la da nga may jox ma lekk wala danga may jox ma naan loolu amul fenn parce que li ñu fi wax ak poñe yi ñoo yem da nga ko war a jox mu lekk danga nga ko war a jox mu naan waaw lu war la mais du force du force du force de ba am nga fitu xëy di ko seetaan ban ko tegal. non non ñun xamuñu loolu parce que yarewuñ ñu noonu. Ah, fekk ñu suñuy fekk ñu yaay ak suñuy papa di def loolu. mais dama ne ni nga bëgg a jëlee yëf yi. jër sëy def ko mu mel ni comme genre pri ngeen def nit comme genre prisonnier. loolu lañ wax ne la sa sa jamono ak suñu suñu jamono mënul nekk. waaw seen jamono jamono bi moo toll foo xamante ni bii. Ah. ak ñun jeunes yi. Ah. ak suñuy xeeti baax baax. day jaadu am na loo xamante ni mënuñu ko def ci suñuy kanamu goro dañuy daal di ah. filaale ndànk laal suñu appartement dëkk bi toj. <laughs> waaye léeg-léeg ngeen xeex léeg-léeg ngeen jël góor goo xam ne bokkul ci kii jël fat ko su waa di demee liggéey da ngeen a wér di. Ah, mënu cee ah kay. ñu nekk ngi ci appartement de. jamono jàmbur. nga jël beneen góor fat sa biir nekk ah ñun de eh. xamuñu loolu. dama ne oh oh damaa dama ne les femmes. vraiment les femmes ki dem sëy yi ngay ne jabaru jàmbur ma jaxase ak adduna ma ne mu ne mën am loolu nga wax wéetaange moo tax am ab appartement la nit mën na faa dugg te gis quand su dee sa kër ndey sa ndey ngi gis góor du jàll dugg sëb néeg ah. sa njëkk ji waaw lan moo tax mais lan moo tax ngeen nangu di wax foo xam ne moo neex te lii nga xam ne lu am la nit di ko jabar jàmbur moo dañuy may ñu eggale ndax ñun booy wax dañ naan tekk di la déglu waaw ndax fi ma laa la baaxul waaw kon nag ñun tamit nag bu ñuy wax mën nan laa ginnaawu de su appartement ba wéetee mën nan laa ginnaawu de gis gis nga sàmba du man kanamam mën ginnaawam ça dépend ci yar biñ la yar rek. mais am na. ji tuut fii capp fa des. moom loolu habitude la rek. mais am na. ndax nit moom jigéen moom. doylu ak doylu ak yem ci sa jëkkër. fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi. mais am na leneen keneen koy def leneen rek ñun loolu taxuñu. mais am na ah, kay waxtaan wi nan ne. appartement la ñu wax. ba conséquence bi ak lan moo waral di uti ji appartement. waaw am na ñoo xam ne wéet na nu bëgg. wet la bëgg parce que. tàngee lu nekk ngi ci. waa ji Père Mbaye Ngoné Fall man du man am goro bu dañ kumpa comme yow. waaw moom ci biir kër. ah damay sàmm de. sa sama kër. damay sàmm góor gu fa ne salaamaaleykum naa laaj loo wut. fan góor papa xaaral. loolu dox nañu bàyyi Mayaam yi mu ngi parce que Mayaam mi ngi xaar benn mu ngi xaar. s'il te waaw loolu laay wax dama ni man du ma am ngoro bu mel ni Père Mbaye nga ñëw ma ci kër gi nga bëgg a jël buum takk ci sama baat fii nii. sama jëkkër bu amee moyen bi dama naan ko ah sang bi. Mm-hmm. nañ daal di dem uti ji fu ñu dëkk. bàyyi sa ndey ak sa baay. Père Mbaye fii kenn bàyyi fu ndey ak mag baayam. ah soo demee. wéyale leen d'accord Maya Ah, d'accord ah soo demee kay ba nga ma wax dëgg yàlla. Euh, Safia. Mhm. on est en train de parler de appartement. ak maison familial mais pour man lépp benn la. Ah, am na foo xam ne am na foo xam ne am na foo xam ne dama fa bëgg a taxaw avant may woyal li may sama sama sama sama sama sama li ma xalaat. mooy jigéen bu ñuy takk amoo pour teg condition naan yow mi appartement nga ma war a dugal par la force am na jigéen yoo xam ne dañ naan man duma ma kër goro pour man yow ki ñuy waaj a takk amoo pour décider. da ngay war a dem appartement wala da nga dem ci kër parce que yow sa jëkkër mooy sa kilifa moom mooy xool li mu àttan ak li mu mën bu dee am na njëgu appartement mu yóbbu la ci appartement bu dee amu ko bu dee danaan la kaa ñu dem ci suñu pantere ba nekk suñu kër da faa war a parce que yow yaa choisir sëy ak moom on parle d'amour c'est-à-dire que mm. bu dee amour moo ko lal yow fu ñu lay yóbbu rek da nga fay dem parce que xooloo condition yi ñu lay teg yow mbëggeel gi ngay xool sa diggante euh, ak ki ngay ki nga nekkal mm-hmm. les gens prennent les appartements am na ci ñoo xam ne on va foofu lay taxaw ci cause yi am na ñoo xam ne dañuy jël appartement parce que dañoo bëgg tranquillité dañoo bëgg am benn stabilité wala am na ñoo xam ne tey jii seen xol kër moo ci nekk suñu mënul dem jënd terrain tabax kër loolu sax la étape boobu sax lañuy la ñuy dem ndax c'est des gens qui sont ambitieux dañ naan man duma ma nangu juddu ba tool fi sama papa yor ma ak sama yaay xëñ na maa ngi def dara ci kër gi mais man dama bëgg a jël sama liberté dama bëgg xam sama papa ak sama yaay lan lañ doon dund damay beru beru bi ça veut da ngay abandonner sa yaay ça veut pas dire que da ngay abandonner sa famille non biir yow également sa propre famille xam sa papa ak sa yaay lan lañ doon daj amaana soo soo soo beroo ci ngay gën a mën a respecté sax sa papa xëy na soo doon jël dix mille par weer di ko jox sa papa ak sa yaay beru nga xam nga charge appartement xëy na am na nu muy demee nga yokk sax la nga doon jox sa papa ak sa yaay pour sargal leen ne leen ah nekkate lii nga doon daj am na am na am na am na loo xam ne dafa garaaw maa ngi koy gis ci société bi dañuy yaakaar ne ku dëkk ci bi appartement sëyoo ki dëkk ci maison familiale xëy di bale di raxas di fobeere yow yaa sëy ñoom dañuy jël sëy boole ko ak lu metti mhm. ku ku dund lu metti ku dund lu naqar ku koo xam ne yow yaa ngi muñ genre am benn goro bu mel ni papa xëy dinaa la raxasal ma sama sama tànk yi ah. wala fompal ma sama dàll yi nga koy def di sëgg dañoo yaakaar ne kooku mooy sëy dañoo yaakaar ne kii xëy suba gàddu saagam dem di liggéeyi jël ñaar dërëm ba mu am bokk ko ak jëkkëram dañoo yaakaar ni kooku sëyul alors que non dañu nekk ci dëkk monde boo xam ne maintenant y a les appartements a les y a les y a les am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk ci ci ci ci kër yi di dund lu metti appartement mhm. moo ko gën dans la mesure où da ngay nekk ci kër ñëpp jàppee la wujj sa goro jàppee la wujj say njëkkee jàppee la wujj gardien bi ci bundu kër gi sax moom seytaane sax lay doon parce que mooy informé ban heure nga dugg ak ban heure nga ah, ci kër sa jëkkër jël benn chaîne or bu ndaw may la ko nga takk ko ndax sa jëkkër la daf la war a teral sa goro gis ko ni moom de xaalis bu mu am jox na ko jabar ji moom de faareetuñu léegi <laughs> sa jabar sañ sa ba jekk sol sol vaccin bu simple mhm. kenn xamul tey jii mhm. kan moo ko jëndal xamuñu góor gi moo ko jëndal xamuñu jigéen gi ñu ni moom de léegi xaalis bu mu am jox na jabar ji saa joxe da ngay nekk ci biir kër gi ñu teg la bët <laughs> da nekk ci kër gi yow tey ji doo ama ci benn sax liberté tu n'as plus de dire ce que tu veux mhm. amatoo droit sax yow am na yenn xeetu sëqat yoo xam ne soo ko sëqatee wala yenn xàqataay dañ naan daf ñuy kokkali hmm. soo nekkee sa biir néeg ak sa jëkkër ngeen di waxtaan ba seen xool neex nga xàqataay danaan dégg ko. daf ñuy kokkali ce qui fait que dans la maison dans la maison amoo benn liberté. quand tu es chez toi te kaay kaay ma wax la leen euh, maison familiale moo ëpp dépense que appartement. Ah. parce que maa ngi ñëw ah, je m'explique papa maa ngi ñëw. maa ngi ñëw maa ngi ñëw je m'explique par rapport ak ku jigéen ki non par rapport ak ku jigéen ki fii sëy. xam nga lu tax ma wax loolu xam nga lu tax ma wax loolu. <laughs> maison familiale moo ëpp dépense par rapport ak ku jigéen ka fay sëy waxuma ku góor ki de pourquoi ma wax loolu soo nekkee tey sa appartement yaa ak sa jëkkër am ngeen benn sutura boo xam ne su ngeen amee seen ginaar yooyu su ngeen amee seen soom bi naan bu dee amu leen dara ngeen naan seen ndox waxtaan ba fajar mais bu dee yow da ngaa nekk kër famille yow jomm nga xëy suba euh, nu mañ ko cin xalaatoo ko ñi nekk ci kër yi elles sont endettées dem nañ ci sa càmmiñ lu mu la may nga ñëw doolee ko dépense c'est tout à fait normal mais pourtant papa fi may waxee sax yow déggoo ko dama la ne dama la ne ñi nekk ci kër yi ñi nekk ci kër yi femmes yi fay sëy hmm. euh, liggéeyuñu par exemple elles sont endettées mënuñu sax am lu ñu jëndalee seen bopp benn genre diw lu ñu am mottale nañ ko dépense te su dee da ngaa nekk sa kër yow di nga xam nooy gérer su la neexee xëy suba togg sa mu xam sax parce que biir nee nañ du fen su la neexee euh, hmm. su la neexee dem jënd sa mbiskit def ci sa xóoyal sa ndox ak suukar lekk yaag sa jëkkër ma sàmba du xam ma demba du xam da ko a def kër famille déggal Sophie mu wax ma tuuti nga may ko baat boobu duggal ci baat boobu mottali ko sa dépense dundal ko say noonu. mu ne nga mottali sa dépense dundal say noonu. waaw ndey ji ak baay bi moom la def noonu. gis nga est-ce que gis ngeen ma ci teg loolu gis ngeen kii eh, man waxuma ak yow de kii laa. ku dangereux ngi nii waaw doo toog ku dangereux ngi nii. waaw non non kii laay waxal man façon man dinaa toog télé dinaa toog télé di wax ndey ak baay barka ba a gën a xam li may wax fi nga jëm ñi xam nañ ko yow dëgg rek dundal ko jox naa la exemple bu jubee torgo léegi dëgg rek léeg-léeg sax nga yeewoo su ma tee wér ba s'il vous plaît wér vous plaît ok d'accord am na ñoo xam ne tey jii sunna la papa sunna la d'accord am na ñoo xam ne tey jii ñu jël sa doom dama joxe juste exemple gis nañ ko fi nga jël sa doom mu nekk xale di liggéey wala muy jàng su demee ñu takk ñu takk ko yóbbu ko ci appartement jàngam bi am na nu muy demee day continuer wala liggéeyam bi day continuer ci jàmm mm-hmm. mais il suffit que nga dem dëkk kër famille waxuma famille yëpp nag duma généraliser ñu ni la ah takkal takk sa doom gi nga na ñëw sëy si dina continuer jàngam wala dina continuer liggéeyam dinañ ko def ne suñu doom c'est des paroles en l'air mm-hmm. soo ñëwee sëy si benn jour danañ la bàyyi nga jàngi ñaari jour nga jàngi beneen bi ñun la yow ndax ndab yi kan moo la koy raxasal mm-hmm. yow sa ay bi kan moo la koy jigéen boo xam ne dafay nekk naan dafay jàng yàq nañ sa jàng yow su dee da nga nekk faible d'esprit mhm. bàyyi nga sa jàng liggéey suñu xëyee suba gis la nga gàddu sa saak def sa talon di cokki nañ jàmm commencé mhm. nañ naan xool ko sëyul euh, yow sa ay bi kan moo la koy toggal na nga fexe ba na nga teel a wàcc war a mën a togg reer bi yow da ngay dem sa bureau doo tala sax concentré wu parce que pression ba nga fekk sa ba nga bàyyi sa kër la soo ñëwaatee fa nga koy fekk mhm. famille yi li tax ñu koy bañ bañ ñu dëkk ak famille parce que dëkk ak sa goro dafa neex xëy suba ne ko pap jaañ wala mën na ko eh, yaay sëy dafa neex ci xol du la wàññi dara di toppatoo say say njëkkee ah, dafa neex par contre y a des gens yoo xam ne ah, dañuy dem dëkk en appartement soit am nañ possibilité dem dëkk en appartement mais wala pour am jàmm parce que kër famille yi léegi famille yu ma gis famille yu njëkk dafa neexoon yaay da daan yow kan moo la jàmm yaay ji da daan defar papa di defar su gisee ñaari couple euh, xuloo papa ji woo ko na ko ah du nii du nii yaay ji woo la ne la euh, sama doom muñal man kat lii laa fi doon def mais yaay yu da ngay ñëw rek ñu def la wujju kan moo la xañ jàmm da ngay ñëw ñu def la wujju yaa ngi naan sa ndekki kan moo la koy defal dama ne ku la xañ jàmm laay laaj lépp yow yaa ko war a def papa mais ku la xañ jàmm yéen ñii surtout genre nii la da ngeen di dund dund old school nga xam ne l'an un yaakaar ni yow gis ñaari frère yu nekk ci kër ñu laale non mais sérieusement et c'est vrai nit ñi dañuy dem ci appartement parfois pour am jàmm pour que seen sëy mën a mën a mën a tirer en longueur <laughs> euh, divorce yu bari soo ko gisee tey ji divorce yu bari <laughs> maison familiale la parce que da ngay xuloo ak ak sa ak sa jabar suñu xëyee suba au ñu xool nu ñu leen di jubalee ñu ngi xam xam xam taal bi sa yaay naan la kii dafa fuy xool ko waru laa waxee li sa frère naan la ku sa jabar doguma la sax baal ma ak baal ma moom mi mi ngi wax naan mi mi wax naan goro yu jëm mun mi ngi wax naan goro yu jëkk dégg ngeen ko de chéri mu ne ak moderne ak ñi nekk Amérique ci jaay na eh, eh, du yoon père danga may may wax de mooy jël ndox mi si lekk lekk fàtte barik la naa ci maa la ko wax mu ngi wax suñu ndox damay dem waaw suñu xel la suñu xel la danger bu njëkk yi bu dama daan ci kër damay sëy ci kër am problème ak sama jëkkër <laughs> coow li jóg goro yu njëkk baax ya laa wax de dara ci seen kaw doom daan na ko ni nga def du nii yaa ko tooñ ndax doomu jàmbur la dal seen kaw doomu xas ko bu jëree sax dóor ñu dóor ko bàyyi ba wéet ak doomu jàmbur daal di ñëw daan ko ah ni nga def sànq kat du nii mm. boo nekk sa jëkkër kat nii ak naa ngay gis nga réglé nga problème boo xamante ni bi ëllëg ci si doom ji ci biir kër gi sax dina rusa joteeg jabaram dara ndax bu day xalaat ne tey bu joteeg jabaram dara yaayam wala papam dina dal ci kaw mais da léegi looloo amatul genre père mbay ba ngoone gi ngay dajante ñu luqati sa bët d'accord euh, Maya euh, merci damay tourner ci benn Benoît laata may jël euh, téléspectateur